bon alors mbir mi daal alxames la. tur bi Mamour Diouf mhm. bon mbir mi alxames la am bon. fi euh, non non fale ci Sakoba. Mhm. dafa am engrais boo xam ne dañu koo jaay boo xam ne dafa nekk euh, engrais boo xam ne war naa toll ci juróom-ñeent fukki saaku ak juróom engrais boobu nag dañ ne leen li engrais gerte la muy 6 20 10 leneen li engrais dugub la muy 6 quinze 10 10 bi ñu ko totaliser lépp dañ ne juróom-ñeent fukki saaku la ak juróom ñu ne chef de village bi nga xam ne moo bokkoon ci commission bi moo ko jaay mais kan la ko jaay ñu ne ab commerçant la ko jaay bi ñu toogee bi alxames nag la ñëw. mu ñëwee bon seet ci la gisee juróom-ñeent fukki saako yooyu ak juróom soog leen a jël ñoom ñëpp yóbbu gendarmerie. ñaata lañ. Euh, juróomi nit lañu. Mhm. waaw juróomi nit lañu président commission bi bon chef du village bi. village bi kan la. Alaji Sène. Mhm. chef du mhm. moo nekkoon délégué des chefs du village. waaw ñooñu daal ñooñu la ñu interpellé. fii may wax ngeen ñu ngi ñu ngi tribunal pour ñu mën a poursuivre enquête yi. waaw thank you